yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon benn saxaabiyu bu ñuy tuddee asxamatu moo doon buuru Éthiopie yàlla dogal mu gëm yàlla tuub waaye mosta gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu génn àdduna ba mu génnee àdduna jibril la ñëw tàgge ko yonent bi ne ko ah sa xarit ba génn na àdduna moom nga bàyyeelee woon sa soxna sa yonent bi da koo fonkoon ba am na soxna soo xam ne ba mu koy takk moom la ko bàyyalee muy ramlatu binti abu sufyaan ramlatu bintu abu sufyaan abi sufyaan moom la ko bàyyalee xoon teraanga ju nekk defal na ko yonantu bi waaye sonn ñoo gisee ndax ma nga ca Éthiopie yonantu baa nga ca madinatul munawara diggante bi avion bu koy naaw dana mat ñaari waxtu ba mu génnee àdduna nag jibril ñëw xamal ko ko yonantu bi woote saxaba yi ñu dem ca wetu baqiya ñi def ñeenti sàppe mu ne dama koy jullee léegi nag yahud yaag musrikoona yàgg ñu ne waaye kii lu muy def nii moom naka lay mën a jullee ab néew boo xam ne ma ngay Éthiopie moom mu nekk ma Madina deuxièmement kii muy jullee sax moom moom mu suñoo gisee bokkuñ sax diine kii di am nasaraan yàlla wàccee aaya ji ne li ñuy wax du dëgg moo tax jullee ku fàddu def gi yonent bi def ko ci la mazhab imam Ahmad abu hanifa imam shafi'i la gën a bëri ci ngiram ñu ne yonantu bi la ñu yàlla royloo ndax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana moo tax ñoom ci seen masaahib yi daganal nañ julleeku fàddu buñ la tàggee sa mbokk ma nga arabi saudi ma nga Tambacounda dee man ngaa koo say mbokk nga taxaw fii kabaar ñeenti kabaar digalee ko ay ñaan sëlmal waaye bu Malik nag bi suñ mag ñi tënku daa koorut ko Malik nee na ki nga sañ a jullee mooy koo jàkkaarloo même boo jàkkaarloo xóor na la waa ji dee mais li li ëpp ca jëmm ja ñàkk nga ko doo ko jullee boppam kese nga gis ci néew bi doo ko jullee jëmm ji daal buñ ko xaajee ñaari xaaj la ca ëpp boo ko gisu rek waroo ko jullee wala nga dajeeg ñaari loxo yam baa ñaari tànk ya léegi léeg nga dajeeg la ëpp nag lu tax nga jullee ko lu dul la ëpp la bokk ci loo xam ne kum kum bàyyeekoo ci yow nga dee waaye xam nga dajeeg ñaari tànk ñaari loxo boo ko génnee ci jëmu daanaka jëmu ja jeex na waaye tànk ya laay jullee loxo ya man naa dagg